أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ba tey ci suura ala imran bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñetti aaya aaya 110 111 112 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ñu ciy jàngal juróomi mbir bi ci njëkk mooy isbaatu xayriyati umma al islam jaa fi lxadis antum tantamuuna sabciina umma antum xayraha wa akramuha allahi tabaraka wa taala bokk na ci li ñuy jàng tey mooy saxal gi nga xam ne sunu boroom subhanahu wa taala saxal na ko ne xeet wi di xeetu lislaam ñoom ñooy ñi gën ndax ñëw na ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne suñu xaajoon xeet wi juróom-ñaar fukki nation ñu ne antum xayraha ñu ne yéen waa lislaam yéen a ci gën wa akramuha yéen a ci gën a tedd alallahi ci yàlla tabaraka wa taala kon danañu jàng tey ne xeet wi di xeetu lislaam waa ji di jullit fi mu bokk diine ji mu bokk ak xeet bi mu bokk moom moo gën ci xeet wi waaye danañ fekk loolu tamit dafa am illa suñu bëggee gën ci nit ñi foog illa googu ñu def ko aaya bi ñu jàng dafa am charte suñu yàlla ne yéen fi gën dafa am charte li tax ñu gën suñu deful loolu ñu nag ñépp a yem charte baa ngi ñëw ñaareel mooy bayaanu illatu xayriya umma xayriya ummatal islaam te nañ jàng tey illa sabab bi tax yàlla taggunu yàlla jël ñu féetale nu kaw te mooy ngëm yàlla jihaad digle lu baax tere lu bon ñetteel mooy waadullahi taala li ummati lislaam yàlla dig na xeetu lislaam dig na leen lan la leen dig maa tamassakat bihi fekk ñu ngi jàpp ci yàlla yàlla moon wax ne dig naa leen an nasr te mooy ndimbal dinaa leen dimbali dinaa leen dimbali alal yahud ci kaw yahud yi jamono ju ngeen xeexeek ñoom jamono ju ngeen songook ñoom ñu daw waaye loolu tamit dafa am sart ndimbalal yàlla balaa jullit di ci jot day fekk jullit communiqué ak yàlla jàpp ci yàlla yàlla balaa muy dimbali jullit day fekk jullit bi jàpp ci moom jullit bi bu fekkente ne pas-pasam wérul xamul yàlla day bokkaale day dund bidaa day def yu kenn xamul jullit boobu yàlla daf koy seetaan dees na ko duma ci àdduna bu mu sonn ñetteel mooy sidqul quraan alquran lu dëggu la fi ixbaarihi anil yahud alquran xabaar nañu ci yahud yi ne fu nu mën a toll toroxtaange la ñuy nekkee fu nu mën a nekk ak toroxtaange la ñuy nekkee fekk dugguñu ci lislaam dañuy torox loolu sunu borom moo ko wax moo ñu ko wax juróomeel mooy bayaanu jaraimil yahud yàlla daf ñuy leeralal ci aaya yi ñuy jël tey mooy crime yi yahud yi def seen musiba yi ñuy def nee na loolu sabab la fi zillatihim ci seen toroxtaange ndax toroxtaange weetalul jàpp ay yonent di leen rey ak nit ñu baax ak ay nit deret jooju ñuy tuur te muy deret ñu baax ñu sell ay nitu yàlla loolu moo tax sunu borom subhanahu wa taala teg seen kaw ak toroxtaange ndax ay criminel lañ ay moykati yàlla lañ tabaraka wa taala mbokk jullit yi bu ñu tënkee juróomi mbir yi danañ fekk moom la ñuy jàng ci ñetti aay yi nekk sunu kanam bi iznillahi tabaraka wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وهبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقول المولى كنتم nekk ngeen wujittum am ngeen kuntum nekk ngeen xayra umma xeet wi gën ci xeet yi lii rek waroon naa tax jullit yi góorgóorlu aaya bi yàlla bind doomu aadama yépp waaye mu delluwaat ci ñim bind mu ne leen yéen yéen a fi gën ah imaginel Macky Sall moom mooy président ban dëkk Sénégal su jëloon avion dem ba benn dëkk wala mu jël hélicoptère dem ba benn dëkk ci dëkk Sénégal yi raison yi ñaata la léegi sax kenn xamatu ko xamatu leen ko 14 la léegi mu dem ba ci benn mu ne ñii ñoo gën ci waa Sénégal ah waa raison boobu la ñuy yëg dañ bëgg de waaye yàlla buñ jàkkaarloo ak ñun ni ñu yéen kuntum xayra umma yéen yéen a gën ci nit ñi ñun lan lañ war a def afdal yéen yéen a fi gën wa abrak yéen a ëpp barke wa abrak umma wujidat alal ard xeet yi am ci kaw suuf yépp mas a dox ci kaw suuf yéen xeetu yonent bi yéen yéen a fi gën loolu liggéey la de loolu rëy na de te yemu ci de yemu ci yonent bi yàllaa wax li waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam def koo feddali lan la yonent bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne yéen ñi kuntum xayru nnaas antum xayru nnaas xayru nnaas yonent bi ne qarni génération bi gën ci génération yonent ne sama génération summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum beneen riwaaya bi ne xayrul quruni génération bi gën ci nu mu tuddati génération bi gën ci génération yi wala ñu ne siècle ah yi gën ci siècle yi yonent bi ne sama siècle ñi ci tegu ñi ci tegu ñi ci tegu ñi ci tegu beneen riwaaya yonent bi ne wallahi ma wata'atil ardu ba'da al anbiya xayrun min abi bakr maa ngi giñ ci màggaa yàlla kaw suuf ginnaaw yonent yi ku mel ni abubakar doxu fi bu yonent bi paasee yonent yi paasee saxaaba yi fi gën kon bu yàlla jàkkaarloo ñun nañu yéen yéen a fi gën ah lan lan war a yëg lan lan def ba gën dafa am illa dafa am charte aaya bi dafa am charte Omar nee na aaya bi dafa am charte pour nga gën mënoo gën nit ñi nekk ci stade yi mënoo gën nit ñi fekk ci làmb yi nga nekk mënoo gën nit ñi fekk yow da ngay bokkaale da ngay sujjóot ci xërëm da ngay raay bàmmeel di tibb ci suuf si di takk ay gàllaaj ay béjjén ki xaaw ak petaaw mënoo gën jamais mënoo bokk ci ñi gën ba pare yor loolu mënul nekk mënul nekk soo bëggee bokk ci ñi gën ñooñu dañoo am illa sart gu leen yàlla tegal kuntum nekk ngeen xayra umma xeet wi gën ci xeet wi uxrijat linnaas yàlla moo yor tameem segg leen génne leen ci biir nit ñi da leen a segg uxrijat dañ leen a tànn nit ñëpp dañoo taxaw yàlla ñëw ne ana xeetu muhammad ñu ne ñu ngi nii mu ne taxawee leen nii yéen uxrijat linnaas dañ leen a segg génne leen teg leen de côté lan mooy sabab bi lan moo tax ngeen gën lan ngeen def lan ngeen a liggéey mu ne taamuruuna bil maaruf parce que sax fu ngeen nekk da ngeen di digle lu baax loolu mooy première illa mooy première charte mbokk yi yéen ñi nekk ci biir jumaa ji ñu déglu tafsir bi tiim ci téere yi su ngeen bëggee bokk ci ñi gën ci nit ñi da ngeen di digle lu baax képp ku gémmiñam waxoo bokkatoo ci génn nga ci boo bëggee bokk ci ñi fi gën del digle lu baax taamuruuna bil maaruf da ngeen di digle njekk al maaruf ci ay aaya yu passé jàngoon nañ lan mooy maaruf yàlla mu ne subhanahu wa taala uxrijat linnaas uzhirat dañ leen a feeñal wa ubrizat ñu génne leen li hidayati nnaas dal tax da yàlla génne leen pour ngeen jubal nit ñi waaye wa nafihim ngeen jëriñ leen allahu akbar ndeke pour nga bokk ci ñi fi gën fokk nga génne nit ñi ci réer waaye fokk nga jëriñ leen yonent bi lan la wax xayru nnaas anfaahum linnaas ki gën ci nit ñi mooy kiy jëriñ nit ñi xayru nnaas anfaahum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki leen di jëriñ yow bu fekkee ne xeet wi amaloo leen benn njëriñ société bi amaloo leen benn njëriñ nan ngay bokkee ci ñi fi gën Sénégalais yi daanaka amaluñ seen bopp njëriñ waxuma laa ak ñu amal ñeneen njëriñ jullit day amal ay mbokki jullitam njëriñ jullit day digle lu baax di tere lu bon jullit warul nekk kuy seetaan rek seetaan nekk ci dëkk bi rek nii nii ah lii de lii de kenn mënu ci dara ah ñu noppi rek dëkk bi moom ñëpp a yem loolu baaxul te loolu mooy li ñu dal ñun ñëpp a noppi ñun ñëpp léegi ay seetaankat lañ kenn du wax parce que da ngay bañ ku la mere da ngay wax soo waxee dañ lay meree amaana ñu ne kii dafa bëri wax wala ñu dëkkal la foo dëkkul xanaa déggoo wax ji yàlla wax kuntum xayra umma uxrijat linnaas waaye dafa am lu tax de lan taamuruna bil maaruf da ngeen di digal lu baax yamu leen ci de wa tanhawna anil munkar ngeen di tere lu bon lan mooy tax ñu nekk ci ñu baax kon ñaata charte lañu waxagum ñaar bu njëkk bi mooy digle leen lu baax waaw léegi benn laaj lay laaj Sénégal da ngeen fee gis lu baax bëri ba kenn mënutul digle lu baax du ngeen ma tontu da ngeen a gis lu baax bëri ba mënutu leen koo digle ñu ne ah léegi kay dëkk bi lépp baax kon jaru ñuy wax ah beneen bi mooy dañ fee gis lu bon amatu fi ba kenn tereetu ko wala xam nga lan moom dal mooy lu bon su baree nit ñi dañuy dem ba defee ne lu bon loolu léegi lu baax la yonti waxoon na ko mu ne bokk na ci màndarga axiru zaman yowmal qiyam an yusbiha al maarufu munkaran wal munkar maarufan su ngeen demee ba jamono boobu rek xam leen yéen a ngi yowmal qiyam ñu ne ko ban jamono mu ne jamono boo xam ne lu baax mooy lu bon lu bon mooy lu baax tey lan la lan moo xew mooy lu bon mooy lu baax lu bon démb dama doon def benn émission RDV waa ji ma doon posé question yi ne ma mais yow yow dangaa tàng de yow yow affaire safara rek ngay wax kan moo ko seetaan démb ah seetaan nga ko waa ji ne ma mais yow yow sa sa mi dafa wax ji dafa tàng mi dëkk bi ma ne ko waaw jamonoy màkka lañ nekk alxuraan ña 114 saar la 92 ñoo wàcc màkk 22 ñoo wàcc Médine yi wàcc màkk yépp lu muy wax yépp a tàng amu ci du sedd ma ne ko Sénégal ah du màkka lañ nekk ma ne ko xam nga lu leen alak dañoo toll waa màkk ñu ñuy wax aaya Médine yi loolu moom alak da ngay gis benn mbooloo boobu stade ña fa tey ñoom ñu ne leen ñëpp dem ngeen aljanna tàllal leen loxo yi nii rekk la yàlla na ngeen fi yàgg ñëw yàgg ma fee fekk yàgg maa jox ma yàgg a nangu tut tut tut dem leen ñëpp àjjana ngeen jëm ñooñu lan lañ def ba dugg àjjana sànq sànq mbokk bu lay def ma laaj mu ne dem bi may jàng si day jàng si école par samedi mu ne tey super bi ma dugg damaa dégg ñu wax ci benn wax ñu ne dafa am benn benn waay bu dëkk Sénégal benn sëriñ bu dëkk Sénégal dafa bëggoon dem màkk kaaba gi ne ko déedéet bul ñëw parce que boo ñëwee yonent bi day dekki moo lay teeru léegi toogal man ma ñëw xam nga wax yooyu bu ko julli di gëmee xam nga wax yooyu bu ko julli di gëmee fu ñu jëm ah kaaba gi lu muy wut Sénégal dafa am yoo te li garaaw mooy ci ay bande lañ koy def ay kaset teg ko ci rajo yi teg ko ci fu nekk nit ñi di loo xamante ne du dara du dërëm parce que du dëgg loolu mooy sunu problème jël nit ñi yàq seen pas-pas yàq seen aqida yi kenn du leen wax dëgg ba pare boo fi buggee wax dëgg ñu naan la da ngaa tàng ak yow si da nga soxor ak yàlla moo wax alxuraan bi xadiis yi yonent bee ko wax aaya yi màkk wàcc màkk yëpp 92 la amu ci bu sedd saar amu ci benn bu sedd ah yooyu yëpp lu nuy wax mooy ku jaamul yàlla boo dee da ngay dem safara ku sa pas-pas wérul boo dee da ngay dem safara alors moo tax ba mbir mi leeree ci ñoom ñoom ñu ne këcc am aqida min demee Médine aaya yeneen yi wàcc saar yeneen yi wàcc di leen jàngal àtte diine yi julli ñaata rakka la nan la ñuy jàppee nan la ñuy ajee màkk nan la ñuy takkee sëy nan la ñuy jigéen nan lay ténjee ay yooyu ñoo wàcc Médine mais moo màkk yi fa wàcc benn sedd ci ma ne ko Sénégal nag ah du màkk yi lañ nekk jamono màkka lañ nekk moo tax kenn warul wax ak ñoom naan leen waa macha allah yàlla jéggal na leen yéen kay yéen kay incha allah ajjana yéenay nekk première classe lan lan def ba nekk première classe ajjana lu benn mbokk dafa doon waranteeg benn waaye mu ne waa ji ne ko dama dégg benn wax est-ce que dëgg la mu ne ko lan la mu ne ko damaa dégg ñu naan Sénégal li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk mu ne ko waaw dëgg la kay est-ce que xam nga ku wax loolu mu ne ko diw moo ko wax waa ji nag léegi ne ko mbokk mi ne ko waa léegi Sénégal lu fi nekk mu ne ko guddi àjjuma yi jàng yi ziyaar yi daayire yi xoolal yi mu lim nee na yooyu yëpp xoolal ku tikki gars yi dañuy yuuxu ba ba set ndeysaan est-ce que yooyu waa ji lim yëpp am na ci bu nekk farata am na ci bu nekk sunna am na bu nekk mustahab am na bu nekk mubaax yi mooy ahkaamu hukmu shar'i di yi ma lim mooy ahkaamu hukmu shar'i sharia buñ la ko tëralee buñ la tegalee dara ñu ne la lii lan la da ngay dindi da ngay indi ahkaamu hukmu shar'i nga teg pour nga peese loolu fan la bokk farata sunna makro lu ñu sib manduub lu ñu sopp xaraam lu araam li nag yooyu waa ji lim yëpp fan la dugg ci ñett la dugg makru ak xaraam lu dugg ci xaraam ak makru loolu lu ci lu ci nit di tiitaru kon yooyu dañ fa dafa jara mooy te ndik ab jullit buy sonn na sonn ci loo xam ne day am tiyaaba lii yàlla moo ko ne sonn ci bu ci sonnee yàlla fay ko waaye nga dugg ci ay caaxaan langar langari ba tas yenn saa yi sax nga gis ku ci dee fekk boo ci dee da ngay dem safara parce que deewoo ci lu yàlla indi deewoo ci lu yonante bi ne nañ ci sonn kon lépp lu ñu di yëngatu lépp lu jullit di dugg nga xool lii lan la lan laa ci jële ndax dinaa ci am tiyaaba ndax sama borom dina ci kontaan ndax lii bu ma ci duggee bu ma ci deewee yàlla dina ma gërëm loolu ab jullit di xool waaye nañ def rek nañ def rek ñu naan leen def leen rek ku dee dugg àjjana dem leen waaye dem leen ñi dañoo bëri wax bu leen leen déglu baax na gis nga ñaari mbir benn bi mun nga koo jotaat beneen bi mënoo koo jotaat bu ñu tafoo sa portable mën nga cee jotaat wala waaye bu ñu tafoo sa imaan pare nga ñu sàcc sa portable nag moo gën ñu sàcc sa sa sa imaan sa ngëm yàlla bu ñu ko sàccee pare nga te ñu bëri ci dëkk bi dañoo sàcc seen ngëm yàlla sàcc sa ngëm yàlla weesuwul benn waay boo xamante ne lu mu la wax rek defal nga def wiiri na la tafu la ba ne roccat sa xol bi sa ngëm yàlla gi waaw dara nekkatu lu mu la dugguloo nga dugg ci bu la bàyyiloo julli nga bàyyi julli bu la bàyyiloo war nga bàyyi loor bu la naanloo sàngara nga naan bu la sàccloo nga sàcc bu la fenloo nga fen bu la bàyyiloo sa baay nga bàyyi sa baay ndeysaan benn kilifa bu mag dañul di jooy ndeysaan ay doomam jur ay doomam doom yi tekki moom këram di daanu te kenn du ko dimbali ñuy jënd ay nag di yóbbu ci ay mbir yoo xamante ne naan dañuy dañuy dañuy dañu bëgg sëñ bi ñaanal leen di jënd ay nag di ko yóbbul bàyyi seen baay nit est-ce que mën na am ginnaaw yàlla bu yàlla paasee bu yàlla jàllee est-ce que mën ngaa am keneen ku gën sa ndey ak sa baay su fekkoon ne loolu am na yàlla bi muy dénkaane du wax wa qada rabbuka allah taabudu illa iya wa wa bi cheikh wa bi cheikh la wax wa bi kan wa bi waalidayni la yàlla teg ginnaaw ba man yàlla ba ma ba nga xamee man li war ci man sa ndey ak sa baay amul keneen loolu tax benn sëriñ mu ne tukulóor la mu ne alquran ko temedere sipo simore e sappo e nayi min jiilimo ɗum fof min donki hen yiide yo ceerno ma ɓurana yumma e bamma mune alquran 114 sarla wërna ñëpp mus mënuñoo gis benn place na la sa sëriñ gënal sa ndeeg sa baay gisuñu ko ci alquran alquran mooy wax ak ñun nag wa bil walidayni ihsanan allahu akbar xoolal même buñ dee ay yéefér yàlla mu ne wa saahibhuma fi dunia maarufa même buñ dee ay yéefér mu ne la wa saahibhuma fi dunia maarufan na nga ànd ak ñoom ci àdduna ci njekk donte ne ay yéeféer lañ wa saahibhuma fi dunia ma kon bu nekk ay jullit nag lan moo ci war wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima allahu akbar billaay yàlla mooy yàlla benn mbokk xam ngeen nu mu amee jabar France dafa am benn tubaab bu jigéen bu mu bokkal fu ñuy liggéeyee tubaab bi xeex ak yaayam ñëw seen liggéeyukaay mi ngi mer changé kanam ñàng waa ji ne ko mais lu xew tey mu ne ko sama yaay laa doon xeexal waa ji bàyyi ko ba mu toog bu commencé liggéey waa yi ñëw ne ko dama la soxla waa ji commencé di ko conseiller nit naka la war a mel ndeyam ak baayam ba tubaab bi nangu mu ne ko boo demee nga jéggalu sa ndey parce que yow li nga wax léegi tey dafa garaaw li nga ko wax ak li nga ko def tubaab bi wàcc rek ñëw fekkee yaay ji rek ci fleur yi dem nuyu ko fóon ko accolade ko ne ko baal ma yaay ji jaaxle jaaxle ne ko waaw ah yow ko doon waxal mu ne ko sama benn xarit bu ma bokkal service mu ne ko ah lo kooku lan la mu ne ko musulman la mu ne ko est-ce que kooku tubaab la mu ne ko non non étranger sénégalais la waa ji ne ko d'accord dama bu mu wàccee ci suba sa yaay ji mu ne ko mais kooku de bëgg naa nga indil ma ko mu dem wax ne ko kaay wuy sama yaay waa ji ñëw wàcc ñu ànd bi mu ñëwee yaay ji ne ko waaw yow yaa doon wax ak sama doom ji mu ne waaw mu ne loo ko wax mu commencé di ko expliquer alxuraan lu mu wax yan conseil la jox nit digganteem ak ay way juróom yan ndénkaane la islaam dénk nit ak ay way juróom mu leeralal ko lu bari xale baa ngi toog di déglu bi waa ji daaneele xam nga yaa ji ne moom lu mu wax mu ne mu ne xale bu jigéen bi mais yow yow am nga sens amagoo jëkkër mu ne waa ji am nga jabar waa ji mu ne de mu ne doo ñëw ñu may la kii waa ji ne ko kii munu ma ko denc munu ma ko takk parce que du jullit yaa ji ne ko nga def ko jullit mu ne doomam bi nangu ngaa nekk jullit doom ji mu ne waaw comme ça ñu takk mu woo ma téléphone laaj may conseil ma jox ko femme bi tuub takk sëy bi am nañ tey ñaari doom day jil baabu ci kaw ba suuf gis nga islaam ngeen lislaam islaam loolu la lislaam lépp lu rafet rek lislaam la lislaam xamul lu ñaaw lislaam xamul lu bon saa yoo gisee jullit bu jàdd rek bu def lu bon rek dafa bàyyi lislaam waaye gisee jullit bu def lu bon dafa bàyyi lislaam waaye jullit bu déglu yàlla déglu yonent bi ñépp a lay ñee ci àdduna bi ñépp a lay ñee ñépp ay bëgg mel ni yow am na keneen koo xamante ne doomam la jël doomam indi ko ba ci imaam bi ne imaam dama bëgg sama doom bi nga jàngal ko lislaam nga jàngal ko sa diine imaam bi ne ko lu tax mu ne ko dama am benn dëkkandoo tunisien damay taxaw sama balcon ma koy séen ni muy def ak doomam yi doomam yi ni ñuy def ak moom mu ne ñaareel bi damay bañ su ma màggetee mu yóbbu ma maison de retraite parce que ñun gis naa ñun suñu aada fii mooy ku màgget ku ne sa doom jàpp sa loxo yóbbu la ba maison de retraite utal la lal tëj la ñibbi si kër gi moom pare nga ci moom mooy dem di la nuyu ji mais yow pare nga xoolal loolu rek maison de retraite est-ce que loo am na ci lislaam ñun lislaam da ngay dundal sa ndey ak sa baay di jaamu ci ñoom yàlla ba xëy dee wala ñu xëy dee ñun loolu lañ xam loolu la ñu jàngal kon naka la ñu mën a dévier ñeneen ñëw fexe ba dugg suñu digganteeg suñu ndey ak suñu baay ñu bàyyi suñu ndey yeeg suñu baay di sonnal ñooñu nga gis koo xam ne bu ko papaam ne woon may ma ndox du indi ndox bi su ko papaam ne woon may ma ndox day lànk su ko keneen ne may ma ndox waxuma la mu may ko ndox waaye bi muy indi ndox mi façon toroxlu bu nekk def na ko simmi na dàllam simmi mbax naam waxuma la raam waaye da doon bërëngu ba indi ndox mi loolu du diine sa papa moo jar nga bërëngu sa yaay moo jar nga bërëngu waaw bu fekkee am na ci ci kaw suuf ku war a tax nga raam mbaa nga bërëngu sa ndey ak sa baay la amul keneen amul keneen amul keneen waaw ndey ak baay la yàlla dénkaane wa wasayna al insana bi walidayhi yàlla nee nam dénk naa leen seen dénkaane ma yàlla moo jël ne la ñaar ñi maa la leen dénk loolu la dénk nag loo ci war rafetal suñu borom nee na kuntum nekk ngeen xayra umma ngeen gi xeet uxrijat yu ñu ñu ñu tànn génne leen li naas ci biir nit ñi lu tax taamuruuna bil maaruf da ngeen di digle lu baax wa tanhawna ngeen di tere anil munkari lu nu sib il faut ñu delluwaat ci digle lu baax tere lu bon bu ñu bëggee dëkk bi soppeeku benn boroom xam-xam daf ma daan wax ne gars yi dañoo wax ba samp fi li fi nekk wax leen ba mu dañ rek ah mbon gi nekk fii dañoo wax ba tasaare ko rek ëpp nit ñi ay moyens ëpp leen làmmiñ gën leen sawar tasaare li ñu yor ñun ñu toog rek di naan ataaya toog ci keppaar yi toog ci sunu pegg soxna yi di njarlu bu njar bi jeexee nga ataaya rek foog nag ñu sori loolu foog ñu def ni saxaaba yi defoon tasaaroo ci kaw suuf tasaaroo ci biir dëkk bi digle lu baax tere lu bon bu ñu ragal ku ñu ŋàññ bu ñu ragal nit ñi wax li gën a doy waar mooy nga dëkk ak ay nit nga leen di rus nga fexe ba def sa diggante ñoom benn barrière boo xam ne doo wax ak ñoom bu ñu defee lu bon wala doo leen mën a tere lu ba doo leen mën a digal lu baax doo leen mën a tere lu bon loolu musiba la foo nekk da ngaa war a nekk ak jullit ñi nekkin bu rafet rawatina sa biir kër ba nga am sañ-sañ di digle di tere al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar digle lu baax tere lu bon nekkul rek ci ay kàddu léeg-léeg nga gis kenn ku def lu bon misaal dafa sol lu bon tubéy la sol bu dee jigéen wala wala wala kooku digal bu baax bi nga koy digal bu baax ba mu bàyyi li mu sol est-ce que wax kese la yenn saa yi amul beneen façon bu gën a gaaw wax te mën nga jënd benn lan très bien benn jàllaaba wala nga dem jënd benn wala nga jënd benn bu rafet nga ñëw ne ko kaay mu ñëw nga dugg ak moom ruq wax ba pare ne ko am suba nga ñëw indi leneen suba nga ñëw indi leneen suba nga ñëw indi leneen bu yàggee kooku yonent bi nee na olof yi ñoo wax ne ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa te nit ñi dañoo gaaw a am complexe ku leen di benn xale bu jigéen bu nekk Canada Sénégal la nekkoon avant muy dem Canada ndeysaan bu doon jàngi limaamu laay xam nga daf ma daan wax jamono yooyu yàgg na de aw ñu dem daawa di daawa ji lycée yi lycée yi dañ fa daan dugg di daawa dafa ma daan wax oustaz xam nga lu tax seen daaw bi yéex ma ne ko déedéet mu ne ma da ngeen waroon gaare ay camion ceeb kër gu ngeen dugal benn saaku ne paa bi yàlla nee na dina ne lu mu wax ma ko wax nga dëgg de waaw ma ne ko wax nga dëgg de billaay wax na dëgg waaw noonu la chrétiens yi def bu ngeen duggee ci àll bi chrétiens yi noonu la ñuy def ay don la ñuy indi pour àll bi dañoo pauvre tukki naa dem naa benn dëkk ci dëkku séeréer yi dëkk baa ngi ci siin ci biir billaahi wallahi taala tukki bu sori ñu dem fa daawa ma dem fa conférence bi may dem ki ma àndaloon saako mburu la jënd saako mburu fëgg jaay yi xam ngeen ñuy jaay postu caaro yi mais billaahi wallahi bi mu ko dugalee ci dëkk bi yaayam jël paaka kilo bu ne mu dagg ci dëkk bi yónnee benn kër dafa mel ne yonent bi moo ñëw foofu ñëpp ñëw di ziare waa ji ma xool waa ji mu ne ma gis nga fii de fii duñ gis sax mburu xamuñu sax luy mburu mu ne moo tax boo ko fi indee day mel ne ay saaku ceeb nga indi ma ne ko allah xoolal Dakar ma ne ko gaa yi foofu di nelaw rek lii buñ ko indi woon fii tey village bi yëpp la ñuy tuubloo voilà léegi loolu mooy suñu problème te waa jooju militaire la de ma ànd ak moom ba seen village poste caari la jënd mburu ma naan ko waa looy doyee lii mu ne di nga ko xam li ma gën a yéem mooy chauffeur bi ñu doon yóbbu ci otoom paquet biscuit moom la yor saak yi mag yi gis nga village bu mu dugg di wàcc ay nit xale yi daw song oto bi ku nekk mu jox la benn paquet fukki dërëm yi village bu mu song di wàcc ay nit waa village boobu daw bu ñëpp déggee riiru oto bi ñëppay génn taxaw di ko teeru mel ni président de la république buy ñëw xale yi ma ni waa ji yow mu ne ma saas village bi ñëpp samay xarit lañ xale ak mag xool am na ñuy liggéey de am na ñu am ñoo xam tiyaaba waaye ñun ndeke kon al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar nekku rek nga taxaw naan mani di déet wala nga yor yar di dóoraate dafa am façon yoo xamante ne boo ko jëfee jaami yàlla yi wallahi laa budda dañ lay déglu da ngeen defe ne yonent bi ñu bëri ay jaasi la leen duubloo déedéet muamala xasana jëflante bu rafet ñii mu wax leen ñu dégg ñii jëflante bu mu jëflanteeg ñoom ñii wax ñoom ñoom ñu daal di tuub nekk ay jullit ñoom ñoom ñu bàyyi lu bon kon nañu tàmm ci sunu kër yi al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar ci dindi lu bon digle lu baax ci wax waaye ci jëf ci jëf xale bu jigéen bi da nga dégg sonoreem muy def musique walla kenn ci kër gi walla sa yaay la walla sa papa musique sa papa lan la tijaan la walla murid la mais kon kay defal ko xasaayit walla nga defal ko jàng mbay doonde loolu moo tane musique bi ba keroog ngay ngay ngay ngay yow li sa intérêt mooy musique bi bu mu fi rëkk rek wala nga defal ko beneen sonori nangam bu gën loolu bu doon sa sœur la aussi nga fexe ba defal ko beneen sonori wala beneen image kaay ma defal la image u kaaba gi waaw fexe ba wax ko lu nekk ci kaaba gi nga ne kaay ma defal la image bi kon dootu ci def image u Balla Gaye wala Modou Lo alaysa kazalika ñu mel noonu la ñuy dindee lu bon waaye nekku rek nga yor sa yat xam nga loolu lu muy tekki Égypte temps yi bi ñu jëlee pouvoir bi gars yi dañu ne président bi nañu àtte l'islam fal force parce que ñun la nit ñi gëm ñun la nit ñi jox seen voix mu ne leen déedéet suñu ko defee dañuy am société boo xam ne ay naafiq lañ non nañu exiger nit ñi muuru na ñëpp muuru ku muurul ñu caw ko mu ne leen kon dañuy am ay naafiq ñoo xamante ne yàlla taxul ñu muuru waaye lan moo tax ñu muuru ragal yar gis ngeen moo tax nit da ngay fexe ba pas-pas bi gëm lim war a def bu duggee ci pas-pas bi wallahi bu jaas yi taxawee it daf koy def kenn mënu koo baare kon nañu tàmm digle lu baax tere lu bon di ko wax sunu làmmiñ ci ci digal ci tere waaye tamit ci sunuy geste sunuy jëf sunuy jëf sunuy jëf bëri na loo defal nit ci lu baax soo fa ñëwee ginnaaw suba soo ko waxee mu def soo ko wooyee mu wuyu wala kon nañu fexe tamit yoon yooyu rek ñu bañ a rek ubbi bunt yi foog ñu ubbi bunt yi beneen sart bi mooy ñetteelu sart ci li tax ngeen gën mooy wa tu'minuuna billahi ngeen gëm yàlla wa tu'minuuna billah ngeen gëm yàlla mbokk yi jullit su gëmul yàlla lu muy gëm ah bu sa imaan bi negul këcc ci sa xol bi lan ngay gëm dafa am benn saxaaba bu tudd sawbaan la xaw ma xaaris su ma fàttewul ñoom ñaar kenn la xaaris la xëy na dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi ne ko kayfa asbaxta yaa xaaris xaaris noo fanaanoo la tey nun nga xëyee mu ne ko asbaxtu muminan billah man ne bi ma yeew damaa yeewoo ngëm yàlla ma yeewoo ngëm te ne ko ah xoola baax li nga wax de mu ne waaw dama yeewoo ngëm ne fama alaamatu imaanik liy wane ne gëm nga liy wane ne yow mi gëm nga yàlla lan la anamu fan lañ ko bind ci yow mu ne ko talaqtu dunia wastaqbaltu alaxira bàyyi naa àdduna jublu alaxira wa sumtu nahaari wa qumtu layaali su bëccëgee damay woor bu guddee may naafila mu ne loolu laa nekkee loolu laa nekkee ba bu ma xëyee suba jàkkaarloog asamaan day mel ne maa ngi gis arshur rahman su ma xoolee sama ndeyjoor day mel ne maa ngi gis waa aljanna ñuy xéewlu su ma xoolee càmmoñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mbugal yonent bi ne ko raayta faltazim gis nga yoon bi de téyel mu dëgër fii nga lii nga jaar foofu la téyel mu génn yonent bi ne abdun nawara allahu qalba jaam bu yàlla leeral xolam a ngi nii di dem il faut ñu am iman il faut ñu gëm yàlla il faut suñu xol yi yàlla dugg ci ba fees ba keneen wala leneen du ci am place xam ngeen ibrahima lu taxoon yàlla rey loo ko doom ji ibrahima dafa taxaw ci àll bi mu seen benn picc di lekkal doom ji ni picc bi di def ŋaan saxal doom ji daw dem indi lekk saxal rek ibrahima xolam dem ci ismaayil yàlla na ibrahima mi xolam bi maa ci nekkoon am na leneen lu mu ci bëgg a def waaye dina ko dindi test la ko yàlla doon defal pour ki nekk ci xol bi génn yàlla rek nekk yàlla ne ko acca reyal sa doom wan ko mu nelaw mu woo doom ji inni raaytu fil manaami anni asbahuka fanzur maaza tara xoolal mu ne ko yaa abati fal maa tuumar sa tajidni insha allah min assabirin kon yàlla rek lan moo jàngeen yawma la yanfau maalun wala banun illa man ata allah bi qalbin salim salim min maaza salim min kulli shay illa allah xol bi foog lépp génn ci lu dul yàlla loo xalaat rek kooku dafa war a génn bu fekkee nit nga xalaat bu fekkee alal nga xalaat loo mënta xalaat dafa war a génn ci xol bi waaw moo tax gars yi gars yi di tooñ tailleur yi ñu ne tailleur tailleur yi bu ñuy ñëw poos ñu ngi koy ñëw ban côté côté gauche xool leen seen poos yi yéen ñu toog ñu am seen yére am poos seen poos ban côté la nekk gauche xol bi fu mu nekk ci gauche gis nga poos bi ci kaw xol bi lay tegu moo tax boo déggee kenn di laaj naan fii sabilillah nga ni xaaral ma joxe bu duwalee loxo iblis mu ne la moytul biye yi moytul yu weex yi de loxo bi nekk fa trop yàgg naan nii bu fekkoon ne xaalis dafa lemu dafa nekk biir biye yi lemu nga gis loxo bi nekk biir di ko di ko laqarti dafay jar sax yenn saa yi nga koy xoos sawee naan nii di ko xoos ci biir moom di xoolal xoolal waxoo de waaye xol bi mi ngi wax ak yow fi mu nekk li ngay def yëpp xol bi moo la koy def la wala moo lay def ndem ni waaw bu doon ay billets yoo taxañ la mu ne la bul jël dix mille bi de non boobu bi cinq mille bi la yaakaar na bi deux mille bi la bi mille bi la xaaral nga ana cinq cent bi cinq cent bi ana jëla cinq cent bi mu jaral lay nga ni nii nga xam ne cinq cent bi la nga doog koo génne joxe ko allahu akbar moo tax yàlla na yàlla defal tawfiq foo ñu am iman borom bi nee na subhanahu wa taala walaw amana sànq ñetteelu sart lan la yàlla waxoon wa tuminuna billah xoolal mu ñëw di wax ñii walaw amana ahlul kitaabi la kaana xayran lahum su ahlul kitaab yi gëmoon dina baax trop pour ñoom kon ñu lan la ñu sant fee sànq rek iman nañu ut iman xoolal ñii lan la leen yàlla wax walaw amana su gëmoon ahlul kitaab yi ñooñu téere mooy yahud ak nasaraan bu fekkoon ne gëm nañ kon de la kaana dana nekk xayran yiw lahum ñu ñeel leen loolu looy dégg mais gëmuñ gëmuñu gëmuñu yàlla ku yàlla ne gëmoo na gëmoo te ahlul kitaab bu fekkee nasaraan ñi la seen yonent moo njëkk a xam ne ñi ay yéeféer lan yàlla moo ko wax falamma ahassa isa minhum al kufra ba isa sentiré yëg ne ñii wër ko entourage am ay yéeféer lañ mu pare ci ñoom qaala man ansaari ila allah yàlla moo waxaat ci quran laqad kafara alladina qaalu inna allaha saalisu salaasa ñi ne yàlla ñett la yàlla nee na ñooñu ay yéeféer lañ yàlla moo wax ne inna allazina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikin fi naari jahannam li yàlla wax lool kon ñoom ay yéeféer lañ yàlla moo ko wax ku leen bëgg a dugal ci diine bi tamit da ngay sonn bokkuñ ci te benn diine dong moom la yàlla reconnaître ci kaw suuf mooy lislaam amul beneen diine kon ñoom ci lan lan nekk mi ngi nii tey yàlla moo ne walaw aamana su gëmoon ahlul kitaabi ñooñu téere la kaana dana nekk xayran yiw lahum ñeel leen minhum am na ci ñoom nag almuminuuna way gëm waaw ñu mel ne abdullahi ibnu salaam gëm yàlla gëm yonent bi waaye wa aktharuhum li ëpp ci ñoom ñu ne mu ne alfasiquuna ay kàccoor lañ li yàlla rek moo ko ñeme wax wa aktharuhum li ëpp ci ñoom yàlla mu ne alfasiquun ay kàccoor lañ allahu akbar ndeysaan lu ñu la wax du dëgg ay saay-saay yu bon lañ xeex diine ay pexe ay këppatal fiir jullit yi rek mooy seen mécc kon na ngeen leen mooy tëndicu ndax yàlla moo ne am na ci ñoom ñu gëm waaye ñi ci ëpp ay lan lañ ay kàccoor lañ yàlla mu ne waaye ñooñu kàccoor yooyu yow jullit bi soo dëgëree ci sa diine sa pas-pas nga wéral ko nga làqatu ci ginnaaw yàlla roy yonent yàlla muhammad lan yadurrukum munuñu leen a lor illa azan ay lor yu ndaw ay wax ak yooyu kese lan leen mënal illa azan ad darar al yasir mooy lor yu ndaw ay wax ak ay ngóoboog ay xeeloog yooyu lañ la mënal waaw am ngeen benn proverbe bu ngeen di wax ci français xaw ma la caravane passe ah loolu mooy lan xaj yi day mbaw waaye du tere allahu akbar otoraay bi jàll wala caravane bi jàll gëléem yi ah voilà loolu mooy jullit da ngay def li ngay def di jaamu yàlla nga bàyyi gaa yi mbaw waaw naa moo temps yi day jullit jullit lu de xoolal temps yi muy ips ipsilu mais booy bi temps yi day yar sikkim de temps yi day kii de temps yi day lii di nii si suñu benn xarit ndeysaan commencé di jaamu yàlla rek benn nijaay mi mi mi yéen gis ngeen diw day julli comme un prophète xaw ma il priait comme un prophète mu ne day julli comme yonent xoolal loolu dëkk xaskat xoolal loolu nu ko nit di waxee jullit waaw bu jullit julli bu lu muy def te xam nga lu garaaw Sénégal mooy boo nekkee ci caaxaan kenn du la wax dara mais fii nga jaar yoonu yàlla rek nga gis gars yi commencé mel ne da nga leen a reyal seeni maam ñi amulul fit wax ak yow sax wala daawuñ la nuyu sax te ngay gis ñu ñëw commencé di la mais booy yow temps yi nga bëri looy dem jàkka de dafa la attention de léegi nga dee waaw léegi nga dee comme li ma ndaw si waa ji doon wax keroog mu ne pourquoi jigéen ñooñu di muur seen kanam di muur si kanam lu tax ñuy muur seen kanam yi mais dañu war a bàyyi seen kanam yi ñu leen di xool xam ñoom ñooy ñan mu ne parce que réseau de sécurité bu nu muuru seen kanam yi kenn du xam ñi ñan la dëkk bi du am sécurité ma ne ko dëkk bi kay li tax amul sécurité waxoo ko ki sécurité rek nga bëgg wallaay waxoo li tax dëkk bi amul sécurité waaye xoolal dañuy bàyyi moo tax dañuy bàyyi lu ñu war a wax di wax loo xamante ne ndeysaan waaw ñu gis naa benn femme boo xam ne day muur kanamam day jàngale école day ñëw ba ci école bi simmeeku ah dindi affaire bi jàngale ba pare muuraat kanam gi dem mais loolu na ko bàyyi rek. waaw xoolal lu ne ngay dégg mais boo fi def lu baax bu yeboo nga matt ko ak say dëgëj bañ a déglu faasiq yi kàccoor yi ndax lan ya durruuk mënuñu laa lor illa adan loolu ay wax ay wax kese te wax yooyu waaw benn xale bu jigéen daf ma doon wax ne oustaz ma ne mu ne ma laalo mbépp laa sotteeku laalo mbépp xam ngeen laalo mbépp ngeen laalo nee na laalo la sotti fii loo ci teg rek day glissé waaw loolu de la ma doon wax laalo mbépp laa sotteekoo lu ñëw day dem nan yàlla jubal borom bi nee na wa in yuqaatilukum suñu xeexee ak yéen yawallukumul adbaar dañ leen di woon ginnaaw daw ñemewuñu xeex yahud yahud dund la bëgg gis nga ku gëmul yàlla ku ne dund la bëgg parce que ñoom àdduna lañ am yàlla moo wax ci suratu baqara aaya balan la yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sana wa ma huwa bi muzahzihi min al azab yàlla ne ne kenn ci ñoom bëgg naa dund junni at yahud bëggul dee gis ngeen képp ku yahud wala nga yor jikkoy yahud wala yahud yi sa mbokk wala nasaraan bëgguñu dee jullit nga gis mu dee muy dee naan allahu akbar fuztu wa rabbul kaaba waaye ñële su dee doon ñëw ne xaar leen ma du leen fa fekk jullit ñi seen yéene mooy bu ñu dem jihaad nañ leen rey bu ñu ñibbi yahud buy dem jihaad lu muy def buy xeexi lu muy def danaan maa ngi dem te ñëw buggul dee moo tax dañ naan chaque jour na ngeen contrôler perte bu leen perte lu bari jullit ni nag ñoom bu ñuy dem dañuy dañuy seeni mbokk nañ daje ji aljanna firdaws yahud bi buy ñëw buy dem danaan jabaram à trois heures kële danaan jabaram man ak yow nañ daje firdaws du ñu benn moo tax yàlla ne bu ñu xeexee ak yéen wan leen ginnaaw dañuy daw parce que bëgguñu dee seetaan naa ci internet bi youtube benn yahud bu yoroon kalashnikov di dàq benn xale xale bu war a am 5 ans toll nii xaw ma 7 ans mu topp ko di ko dàq di ko dàq di ko dàq ba ci àgg rek xale bi taxaw jël xeer rek waa ji daw ak pistolet bi billaahi wallaahi seetaan naa ko maa ko seetaan dafa dàq xale bi ci àgg rek xale bi sëgg taxaw far xeer rek waa ji daw yàlla moo ko wax laa yuqaatilunakum illa fi quran muhassana même bu ñuy xeex ak yéen ci ay blindé la ñuy dugg blindé xoolal ñee lan lañ yor ay xeer ñii yor ay arme ba pare dugg ci blindé ba pare di yërndu wala du ngeen seetaan image yi télé Palestine du ngeen ko seetaan waaw kon nag yàlla moo ñu wax moo wax dëgg li ñu yàlla wax bu ñu ko gëmoon egg nan waaye sunu problème yëpp mooy dañuy yox yoxi ci kàddu yàlla tabaraka wa taala borom bi subhanahu wa taala mu ne wa in yuqaatilukum bu ñu xeexeeg yéen yu wallukumul adbaara dañ leen di woon ginnaaw daw summa laa yunsarun te kenn du leen dimbali allah yéen nag dañ leen di dimbali inna la nansuru rusuluna yàlla nee na man damay dimbali samay yonent samay ndaw te wa man nasru illa min indillah ndimbal du bàyyeekoo lu ci lu dul yàlla te wa in tansurukumullah wa in yansurukumullah fala xaaliba lakum bu leen yàlla dimbalee kenn mënu leen a gañe mu ngoog borom bi nee na duribat teg nañ axaatat peeg na bihim ci ñoom yàlla nee na teg nañ seen kaw wër na leen alayhim ci ñoom azillatu toroxtaange toroxtaange la yàlla teg seen kaw aynama suqifu fu ñu mën a ne ci àdduna yahud day torox rek gis ngeen Hitler lim ci def ah Hitler lim rey ci yahud kenn xamul nu mu toll ci pour la leen doon dugal di leen lakk parce que xam na parce que xam na ne yahud ñoo gën a bon ci àdduna moo tax lim ci rey kenn xamul nu mu toll parce que ñoom dañoo gëm ne ñoom ñooy ngën gi xeet ñoom ñooy saabullahi almuxtaar ñoom sax dañoo gëm ne ñoom ay doomu yàlla lañ fu ñu nekk duñu respecté ñeneen moo tax ba leen Hitler jàppee la mu bàyyi ci ñoom lu tuuti la gis ngeen dañoo tasaaroo woon ci àdduna bi gars yi ñoo leen dajale waat fee Israël Palestine ñoo ñëw dóor arab yi dajale leen ci àddina bi fan lañ leen bëggoon yóbbu ci dëkku Afrique yi Éthiopie Éthiopie lañ leen bëggoon yóbbu ñu xam ne foofu baaxul ñu dem yóbbu leen Palestine dajale leen nag copp copp copp dëkk bu nekk ñu jëli yahud ya fa nekkoon samp leen foofu waaye dëkkuñu fa woon borom bi nee na teg nañ seen kaw toroxtaange aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk illa lu dul bi hablin min allah lu dul ci diine yàlla hablullah mooy islam lu dul ci buumu yàlla gi tabaraka wa taala illa bi hablillah min allah illa bi hablin lu dul ci buum ci diine min allah ci yàlla wa hablin min annaas ak ci diine yi nit ñi te mooy lislaam wala contrat wala pacte bu ñu signé woon ak ñoom ñaar yi rek rek rek rek mooy tax ñu mun leen a bàyyi waaye amma leneen lu dul lool suñ fa demee rek mooy toroxtaange lañ fay jëlee abdullah mooy addiin al islam mooy diine yàlla tabaraka wa taala kama axbara taala minhum islam rek la ñuy nekk ñu am jàmm su dul lislaam du ñu am jàmm borom bi subhanahu wa taala mu ne wa ba u continuer nañ bi xadabin ci mer minallahi bu bàyyeekoo ci yàlla wa duribat teg nañ encore alayhim ci ñoom almaskanatu pauvreté lu waral loolu mu ne zalika bi annahum kaanu yakfuruna bi ayatillah ndax dañ daan weddi aaya yàlla yi kon ci lislaam rek la ñuy nekk ñu am ngërëmal yàlla nekkuñ ci lislaam dañuy continuer ci mer bu leen yàlla mere woon ci Muusa mere leen ko ci Isa waaye mere leen ko encore ci Muhammad ma mu ne wa baawu dellu nañ bi xadabin ci mer min allahi bàyyi koo ci yàlla ci jamonoy Muusa gis ngeen lañ defoon Muusa ci jamonoy Isa gis ngeen luñ def ne doomu njaaloo la ba pare fexe koo rey yonent yàlla muhammad ñëw ñu weddi ko bugg koo posone bugg koo rey moo tax borom bi ne wa duri ba tekaat nañ alayhim ci ñoom almaskanatu pauvreté te mooy ñàkk lu waral loolu zalika bi annahum ndax ñoom kaanu nekkoon nañ yakfur na di weddi bi ayatillahi aaya yàlla yi yamuñ ci waaye wa yaqtuluuna al anbiya ñuy rey yonent yi allahu akbar benn rey rey nañ benn bis rek rey nañ ay nangami nangami yonent qatul anbiya bi gayri lhaq rey yonent yi dul jeex ci lu dul benn dëgg waaye mooy yonent yi yonent yi di wax ak ñoom ñu lànk bañ a dégg borom bi ne leen mu ne zalika loolu bi ma asaw loolu nag la ko waral mooy la ñu moyoon yàlla seen bàkkaar ya bari ba seen xol yi xomaat xamatuñu lu ñuy def ñu jàpp yonent yàlla yi di leen rey ku rey yonent nag est-ce que nga rey keneen ku dul yonent dina difficile ci yow loolu moo tax gis nga borom xam-xam yi dañuy rey rek am na benn waaye bu ma doon wax ne mu ne même fan yi li am Égypte ñooñu doon rey nit ñi mu ne ñi ci ëpp israéliens yi lañ jëli seul lañ tëni égyptien ndax jullit yi ñoom ñemewuñu woon rey seeni mbokk waaye dañoo dañoo masqué soldats israéliens yi solal leen ay tëni ñu wàcc ci ay corde ci ay hélicoptère di fetal nit ñi parce que xam na ne ay musulman rek ñoo fa nekk loolu nag allahu aalam mu ne zalika naka noonu bi ma asaw ca lañu moyoon yàlla wa kaanu nekkoon nañ yaataduun di jalgati di jéggi dayo fuñ leen wax yem leen duñ fa yem kon chaque jour bu ñu jàngee alxuraan ba aaya yi jeex danañ wax nit ñi nañuy bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee tey sunu aaya yi jeex na ci ñett aaya bu njëkk bi borom bi nee na ñooñu ay kàccoor lañ ñaareelu aaya yàlla nee na duma leen dimbali ñetteelu aaya nee na ñii dañuy jalgati dañoo jéggi dayoo kon ñett yi yëpp kenn ku nekk xool ko ci sa bopp ndax mbaa bokkoo ci kàccoor yi mbaa bokkoo ci ñu yàlla dul dimbali mbaa bokkoo ci ñuy jalgati jéggi dayoo képp ku mu nekk ci ñun bu fekkee seetlu nga benn melokaan wala benn jikko wala benn mbir ci yi ñu wax mu nekk ci yow nga jéem a tuub jéem koo fóot ci sa bopp jéem koo dind ci sa bopp yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp li mooy darsu tey asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su amee question incha allah